ko sax. Mhm. ngay jël loo xam ko ci maanaam di ay dugub wala di jël ay ndox wala di def yooyu. bokkul si aj te mm-hmm. bokkul sax si diine mm-hmm. donc waaj boobu dafa am solo mm-hmm. te yooyu yëpp ñakk a xam la ma am ma ma ma may dolli rek mbooloo mi nii di dolli euh, formateurs yi euh, ne daal volet boobu dañ ko dañ dañ dañ ci war a bàyyi xel alors waajal leen fii former leen fii bu ñu laa dem parce que loolu dafa am solo te bu ñu demee it ñu ñi nga xam ne ñooy accompagnateurs yi. Uh-huh. ñu ñu ñu fee ci lenn. Uh-huh. xamal nit ñi parce que dafa am ñu bari xamuñu. Uh-huh. am na ki sol lu weex grand boubou bu weex bi dama xamatul dama fàtte tur bi. waaye wax na ko sànq. ñu jëme ko foofu ci benn hôtel par exemple nga war a dem def ay ay ay ponk yoo xam ne mooy tax yow ñu ne aj nga mm. nga naan yéene bi rek mat na mm. loolu defe naa ne bokkul ci ci ci ci mm. ci lii gën alors loolu moom laa amoon euh, lu ma leen di wax ngeen bal ma yal na yàlla contribution am na solo contribution bu am solo la xëy na xëy na jërëjëf xëy na ñi ñi yittewoo mbirum ak Sénégal war nañ ko bàyyi xel mhm. mooy ñu créer ñu wut ay formateur mhm. yoo xam ne du nécessaire sax ñoom ñu dem aji mhm. waaye fii ci Sénégal ñu jël lu mooy néew néew ñaari weer ba ñetti weer di ci dajale nit ñi di leen di leen ci former te loolu doy na sëkk ñetti weer yu ñu jël consacré ko jël ay niveau nit ñu am xam charia xam nañu aje ñuy dajale nit ñi par ay groupe wala par salle moo xam fu ñu ko defee baax na loolu nga wax am na solo lool lool lool te fekk dugalagu ci aj gi aj gi am ay jafe-jafe. wax na dëgg wax na dëgg. Mhm. oustaz la euh, oustaz maa ngi woon ci biiru Ali. waaw bu ko defee boo fay agsi la plupart ñu ëpp ci pèlerin yi day fekk am nañ njàpp euh, sangu nañu. lan nañ parfois def nañ liñ wara def sol nañ seen i armal bu ñu ñëwee fekk waxtu julli jot dañu dugg jakk julli wala boog ñu def tahiyatul masjid wala ñaar rakkay sunna amna na ñoo xam dañu ag fu ñu bu soxla seen bopp bëgg a man nañu japp ku fa ñëw bëgg sangu ay douche nga fa man nga sangu bu mm-hmm. ko defé julli sa ñaar rakka né yalla fas naa aj aj gi nga xam ne nga mom nga mom nga mom nga mom nga choisir mom nga tan mm-hmm. donc foofu amul problème l'essentiel lim doon wax rek mo ci am solo accompagnateur wala guide yi wala dañu gëna taxaw nit ñi fofu ba kenn ku fa bismillah mbokk bi bismillah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ngi ziar. yàlla yàlla na mu ziar bi. maa ngi baalu àq nag ci sama question bi ndax amul benn relation ci aj bi. Ah. waaw yàlla daf ma boole ak nit. Hmm. nit boo xam ne su ma teeyee ma ne daf ko gëm yàlla la. Hmm. ku am diine la. Hmm. te ku bëgg yàlla la. waaye yàlla def na ne. mu ne ma daal su fekkee moom ma digg mu naan ma ne su fekkee moom gaañu na. Mhm. buggul ku ko jàng ku ko wàcceel alxuraan. Mhm. ndax nee na alxuraan dañ koy jàng daal ci sa giir dund. Mhm. te ma gis ne Sénégal képp ku gaañu. ñu ngi lay wàcceel alxuraan. ma bëgg fii nag ci fi ma dëkk bi ma nekk. lu kenn du ko def. kenn du wàcce alxuraan bu nit gaañoo daal dañuy ñaan rek dem. ma bëggoon nag am lu ma si leer. Mm-hmm. ndax loolu dafa jaxas sama bopp. day mm-hmm. jëf soxna si. Mm-hmm. léegi li ñu tàmmoon fii li ñu tàmmoon mooy bu ku laaj laaj boo xam ne bokkul ci thème bi ñu traité. kii ñu invité la ñuy laaj rek su ko neexee mu tontu su ko neexee bañ cee tontu. ndax tam euh, bëgguñoo. créer situation euh, tontu laaj yëpp loolu tam wóorul wérul. moo tax dañu naan bu ñu xasee tànn thème. kuy laaj laajal ci thème bi soo laajee lu bokkul ci thème bi. dañuy laaj ki doon waxtaan rek su fekkee mën na ko ton mu tontu ko su ko mun ton mu ñu bàyyi oustaz ndax. waaw am na question yu ko jiitu. waaw baal ñu wax ci yooyu après suñu amee temps ñu jël si ci. incha allah dana dana ah. dana ci tontu bu soobee yàlla bu bu fa waxtaanu jëm. Euh, léegi bu fekkee li limaan doon laaj ci wàllu ku def ifraat. Hmm. Euh, effectivement loolu benn lëj-lëj euh, la tuuti ci aj gi. Hmm. bu ñu demee ba sur place da ciy am ay werante ku def ifraat ala kulli xaal li nit ñi pratiquer actuellement. Hmm. mooy ñi def ifraat bu ñu paree euh, danañu am jotu man a dem omra ji mm-hmm. xam ne da ngay génn Makka euh, trottoir bi rek masjid Aïcha moo ci topp ci mm-hmm. Tan'im mm-hmm. euh, nga dal di armale foofa ñëw dal di tawaaf daw sa Safa ak Marwa dal di dal di summeeku kon nit ñi mën am nañ am nañ chance mën a omra ji insha allahu taala na am na ku nekk ci lañ ji bismillah mbokk mi salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi na ngeen def ñu ngi sant yàlla. man Mouhamadou Mbacke la. bisimilah Mbacke bisimilah. ok damaa bëggoon dugg ci émission bi. bisimilah bisimilah Mbacke. di leen nuyu baax a baax a baax. ñu ngi fay fay ñu ngi lay fay. di leen sargal it. jërëjëf jërëjëf Mbacke. ci jotaay bu tedd bi ngeen. barakallah fiikum Mbacke. Euh, lii dafa nakk loo xam ne. Mm-hmm. Euh, bu nu sañoon. Mm-hmm. bu doon jotaay yoo xam ne. Mm-hmm. wax bu ne day am. Euh, di wax rek Sénégal. ñu ñu bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. ndax damaa dégg sëñ bii wax léegi ne. Mm-hmm. ñàkk a jàng. Mm-hmm. ñàkk jàng baaxul. ñàkk bu ñu ko dee wax. français taxul ñuy wax. anglais taxul ñuy wax. nun ay jullit lañ. julliti français yi mën nañoo mën nañoo mën nañoo jàng français. julliti anglais yi mën nañoo jàng anglais. waaye fii ci Sénégal. ginnaaw ñun dañoo dégg wolof dañ dégg. yeneen làkk yi ñu ngi mhm. waaye lii mu wax léegi ne mhm. diine yi mhm. boo koy jàng da koy jàng sa ci bi nga dégg ndax boo dee xool mag ñu baax ñu fi nekk boo bu man bu ma jëlee sama sang sama sang bu baax bii di sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul boo xoolee li mu doon jàngale diine yi lislaam maanaam lépp ci yëfi boppam rek la jëm. Mhm. maanaam ci ci ci ci ci boppam bii. Mhm. ci Sénégal. Mhm. ndax bi ko bi ko tubaab yi bëggee yóbbu mu sënd. di wax ne Cheikh Sidiye Baba. na na waxtaan ak moom. daf koo wax ne ko. Mauritanie ak Madagascar. ñoo yam ci man. ñu bàyyi ma fii ci sama réew. li li li ma yéene. sama réew laa ko yéene. waaye Sénégal nag dafa mel ne. Mm-hmm. Euh, seenum njàng yëpp. Mm-hmm. dañ koo jëmale ci tubaab. Mm-hmm. jëmale ko ci yeneen yeneen ci euh, boo xoolee suñu président yi nga xam ne am nan ko. Euh, la ko dalee ci président Senghor. ba ci président Macky Sall daanaka boo boo xoolee maanaam mel num Léopold Sédar Senghor képp. mooy ki nga xam moom lam gëm fexe na ba xam. ñeneen ñi ci des ñëpp. koo ci laajoon diineem mhm. du ko xam mhm. te koo ci làkk tubaab mhm. bu la tontoo nga jàppoon ci France kon loola complex la nit du am complexe ci maanaam nu war a xamee diineem dafa war a xam dafa war a pexe ba li nga xam ne mooy diine lislaam ndax suñu borom dafa wax ne wa man yabtaxi xayral islaama diinan falan yuqbal min kon nag li am lépp solo ci nun ñun ñi nga xam ne ñooy ay Sénégal tey ay jullit mhm. nañu fexee xam de lislaam mhm. ndax télé yii foo ci dégg daf lay wax ne la suñ doom yi jànguñu luñ ja école école rek ngay dégg école école mhm. euh, xoolal Sénégal maanaam bare bi Sénégal yi foo ci dem dëkk àll yi sax da nga koy école tubaab bare bare bare bare yoo xam ne doy na waar ñu ñuy jàngal France guddi bëccëg te ñun duñu ay tubaab te mënuñoo mel ne tubaab yi te buñ mënoon a mel ne tubaab yi sax dañu leen war a sib ndax innamal musrikuuna najasun mu ñu moytandiku bu baax a baax a baax yooyu da te war di waxtaan ci jotaay yi ngeen di toog ndax lii sëñ bi di di wax ni ci Makka tey ji waroon naa fekk Sénégal ñu ëpp xam lool ba duñ ko ba duñ ko toog di ko di ko jàng ci télé ndax sëñ bi ni mu def nii métti na ndax toog di di ko jàng lu baax la waaye lu métti la waaye li de leen di mën a dimbale yéen borom xam-xam yi. Mhm. mooy nañ jàng. Mhm. nañ dem ci daara yi ñu jàng. Mhm. fekk la daara yi alxuraan yi. ak mu jullit. jàngaloo wuñ ko baab jàngaloo wuñ ko anglais jàngaloo wuñ leneen. liñ ko jàngaloo mooy euh, alxuraan lañ ko jàngaloo pexe ba xam diineem. waaye Sénégal kenn xamut maanaam da ngay gis nit mu kallaf nga dajeeg moom bu la lakkee tubaab nga jàpp ne français la te boo ko laaj laajee diineem. du ci xam dara dara dara man rek mu ñaaw darah ñaaw comme mi ci sénégal dara dara wu ko lool doom ji nga xam ne dafa judd am juróom ñaari at sa borom xañ ko ñu bari yëkkati ko jox la ne la kat xañ naa ko ñu bari jox naa la ko di xool ba xam da nga ko sant wala doo doo ko doo ko gërëm ah, da ko sant wala doo ko nga daal di jël doom joojee ne ko man am naa ko ba noppi lu ma neex laa koy def jël ko jàngal ko tubaab loolu mën naa ñàkk loolu xarab suñu boroom la lu ñaaw a ñaaw bi ci senegal bi Sénégal yi waroon naa fekk président bi koy jiite moo war a gën a xam diine ñëpp ministre yi xam seen diine ba joxante loxo bi ñuy joxante loxo góor jigéen mu dakk diine lislaam dafa war a fort fii ci Sénégal ndax senegal dañuy wax ne quatre-vingt-quinze pour cent yi musulman lañ waaye man Mouhamadou Mbacké wedd naa loolu quatre-vingt-dix pour cent yi ci bëri ay naafaq 3 pour cent yi maanaam 5 pour cent yi ñoo ci ay jullit te 3 pour cent yi duñ ay jullit sax yu ko 2 pour cent ñoo ci ñi nga xam ne bu suñ borom wootee ñu bàyyi seen lépp jox ko te buñ jógee jël jël seen i doom yóbbu ci diine lislaam ñooñu ñooy jullit xaqan waaye nii ma gisee réew mi moom 90 pour cent yi ay naafeq lañ ay jullit lañ ñu dañuy war ci kaw waaye biir gi moom dara du ci def ah, pour cent yi moom mooy jullit yawma yi nga xam bu aj Makka jotee xaalis loterie yeeg xeet yooyu ñu naan damaa bëgg aji màkka ñaata nga dégg ñuy wax ko dama bëgg yóbbu sama yaay màkk sama bëgg yóbbu sama baay màkka te yow la la war sa digg sa borom julli julli sax du mat doo ko def te dañoo war a xam ne aj màkka ni mu waree julli noonu la waree mhm. ponk lislaam yi juróom lañ dëgg ñu fexee ba xam ko mhm. xam ko bu wóor wóor di ko jëfee nañ ko war a jëfee loolu mooy li nga xam ne moo am solo waaye buñ bëggee jël aj màkka lan lan moo laa su muy adduna adduna yi kese ci la xam aj màkk xam ne adduna rek ci la xam te amul benn njëriñ loolu nag ñàkk jàng rek la mm-hmm. nit bu xamee diine nit yàlla euh, doo ko doo xam ba noppi di ko mooy mm-hmm. suñu borom da daf ñoo wax nañu mm-hmm. da ngeen may jaam jaamu gi ni ñu koy defee mooy taxarifuuni qabla an taxbuduni in lam taxarifuuni fa kayfa naxbu ab dëkk boo xamul fu yoon wa foo boo xamul nooy def ba dem ko boo xamul yoon wa doo ci dem ndax màkk gi boo ci jéemoon jël yoonu France bi doo yegg kon yàlla mu mënee ko sëñ waa teg te waman tajarada li taaxatil jalili qabla taxallumin fa xumrun sukara la nabi loolu kon nag xamul sa diine na ko laaj ndax fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun kon lii ñu lii nga xam ne ñu ngi ci sonn guddeeg bëccëg suba ngoon ci lamb yeeg way yeeg fecc meeg fomm yi ëpp ci Sénégal ba jéggi dayoo loolu de maanaam julliti Sénégal yi dañuy war a jóg taxaw ci seen kéemtalaay kàttan ndax nit ñi mën a xam seen diine xeexal lislaam la ñu war a def boo xoolee tey jii Serigne Touba bi ko tubaab yi di jàpp di ko yóbbu Gabon l'islam rek a tax dara taxul ñu yóbbu ko kon tey ñun waruñu bëgg ab tubaab Serigne Touba lañ ko doon def ci Gabon tey buñ ko génne woon tey jii Sénégal da ma dootuñ bëgg tubaab ndax fetal nag lu ne def nañ ko ko def am am am pax ba mu xóot ñu suul ko lan lépp luñ ko luñ luñ ko defee ngir bëgg a fay l'islam waaye ñun ndax yoon la ñu bëgg tubaab pour ñu bëgg tubaab xoolal euh, ndar gii kilifa yi yi fa nekkoon am na kilifa yoo xam ne tubaab bi dañu leen rey buur yi tubaab bi dañu leen rey kon ñun ndax yoon la ñu waruñoo bëgg tubaab li li am solo ci ñun mooy ñu li ñu doon muy ay jullit yan suñu sunu borom ci boppam moo ñu sàkk te bu neexoon def ñu ay bàyyi ma def ñu ay bàyyi ma dimbale ñu ci kattanam ak yërmandeem def ñu ay doomu aadama bu bu ko neexoon mu def ñu def ñu ay yëfar waaye defu ko daf ñoo dimbali ci coobareem kattanam ak yërmandeem boo nañ ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sëñ bi waaw. Mbacké jërëjëf sëñ bi Mbacké sa contribution am na solo. wax dëgg yàlla am na solo même bu demul direct ci thème itam am wax na fi problème yu am am solo. Euh, lu ci bëri tam d'accord nañ ceeg moom. Euh, surtout euh, am am solo jàng alxuraan ji ak jàng diine ji. xanaa di ko wax rek ne buñ ko defee pare nag ñu ci dolli baax na. Mm-hmm. c'est-à-dire jàng français bi bu fekkee ne. jàng diine jiitu na ko jàng francais bi jàng anglais jàng lépp luy xam-xam loolu du du wàññeeku ak yokkute rek lay doon mhm. loolu lu am am solo la bu dee tubaab gi nag moom civilisation bi moom la ñuy aayee parce que civilisation bi moom du civilisation gëm yàlla waye tubaab en tant que nit mom amul ben problème lolu lolu wax deug yalla sa contribution amna solo baxa baxa bax hmm. ñu ngi ko rafet lu bax di ñaan benen yoon itam su lako ko nga dugg wax deug yalla wax ci ci xalat tax émission bi hmm. lolu rek ko taxa jog moy contribuer ci yee euh, conscience su hmm. ñu xam ñoy ñan lolu ñu ko rafet baxa bax amna ku nek ci ligne bi bismillah mbokk mi alaykum alaykum assalam wa rahmatullah ngeen baal ma de jigen la wa bismillah dama am rek luma doon bëgg laaj bismillah ndax kalaasu dama dégg ngeen wax bu ñu jigéen soloo ba pare mhm. euh, waxu góor daal ngeen wax ci waxu wattu bi daal laa bëggoon ngeen leeralal ma mhm. ndax jigéen ni ngeen baal ma jël ci terme bi bismillah bismillah man li ma bëgg du ngeen ma ko mën a tekkil mhm. ndax jigéen dina mën a wat suufam ak ndax dina war a mën a sol slip d'accord buy tawaas loolu daal laa bëggoon ngeen leeralal ma ko solo am solo ak ban ak nga war a dem jàkk ay sax waaw jërëjëf soxna si yow tam sa laaj am na solo imaam la defe naa dama lay jëggal léegi ci aj gi da nga toog ci question yi <laughs> waaw d'accord léegi question sëñ Elimane yi wax dëgg yàlla am nañ question yu am solo yu mm. kon dañuy njëkkee ci teew question soxna si rek euh, li doon wax ci wàllu